بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باق الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidi alawalina walaaxirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu raxmatan lilaalamin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain amma baad salaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci suñu jotaay yu am solo yi te mooy ak kunuusu sunna Euh, wala kunuuzu saalik te mooy jotaay yi nga xam ne ne dañ ci waxtaan ci lu aju ci nit ki euh, moom ci boppam ak diggante ak boroomam ki nga xam ne day suub ci yoonu yàlla wala ki nga xam ne ne dafa jëm ci suñu boroom tabaraka wa taala yi nga xam ne ne ay trésor la yoo xam ne da ko soxla ngir yoonu yàlla ñu war ci ànd ak suñu mbokk suñu xarit te mooy Seydina Omar ñu bàyyi la nga nuyoo bisimilah. salaamaaleykum Oustaz. ñëpp di ziar ñëpp mboolem ku ñuy teewlu ci plateforme daal ñu ngi leen nuyu di la ziar. alhamdulilah euh, seen tey incha allah dafa am point bu am solo boo xam ne ne moom laa bëgg ñu waxtaane parce que point la boo xam ne ne point d'actualité la en plus point la boo xam ne ne ñu bëri ci nit ñi wala surtout suñu dëkk dañ koo négliger waaye tamit duñ ko bàyyi xel lu bëri am na ci ñoo xam ne sax dañ koy foowee ba keroog. loolu noonu ci boppam euh, mu nekk loo xam ne ne balaa ñuy xam valeur rek fekk na wees na te loolu moom mooy al futuwa moom mooy lan moom mooy jeunesse ak ndaw <coughs> lu am solo la ci lislaam lislaam da ngay gis ne suñu borom tabaaraka wa ci suratul kahf da cee jagleel ay jeunes yoo xam ne ne dafa wax ne innahum naka ñooñu fit fit euh, fityatun ay ndaw nañ amanu bi rabbihim ba pare ñu gëm seen borom wa zidnaahum huda ñu daal leen di dollil ak njub maanaam ak gindiku nga gis ne ne ci yeneen anam da ciy nettali li nga xam ne mooy jeunesse boobu noonu seen seen histoire comme lu ci mel ne fu muy wax ne is awa fityatu ila ila ila ila al kahfi fa xaalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rachada xam ne loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ne alxuraan da koy nettali nañ ay jeunes neen yoo xam ne ne dañoo daw dem ci li nga xam ne mooy grotte bi ndax lan ndax dafa amoon système boo xam ne ne dañ ko gisoon mu mettre en place nga xam ne lépp ci mooy yàlla la ak weddi yàlla ñoom ñu bañ ne duñu mooy yàlla duñu weddi yàlla ñu ne sax dañuy jéem a changer société bi ba autorités yi dégg leen ñu nekk ay jeunes mu xam na ne ay jeunes leen yoo xam ne ne dañoo fas yéene dañoo contraire ak système bi fi tegu ñoom ñu jël seen initiative fas yéene leen duma wala fas yéene leen génnee ci li nga xam ne ne mooy seen pas-pas ak seen gëm-gëm ñoom nag li ñu réagiré mooy lan waxuñu rek ne ay xale nañ kon nañ toog ne kon jeune da ngay gis na ne yàgg nañ ko sax xeet ci ay conviction ci ay ngëm-ngëmam waaye ñoom bàyyiñ noonu suñu loxo ba suñu borom tabaraka wa taala daal leen di tuddee saar ndax seen jëf bi ñu jëf la xam ne nañoo fipp mu jaral leen ñu gàddaay daw dem ci grotte ba ba li ci xew xew ci suñu borom neraw loo leen foofu lu toll ak trois cent neuf année génnee leen bañ ba mu leen génnewee ak histoire bi yëpp lu ci xew nga xam ne jàngat bi ci nekk loolu yëpp mooy lan mooy jeunesse ci boppam ci société lan la war a doxalee naka noonu tamit àndandoo. naka la war a naka la war a doxalee. naka noonu tamit ci jeunesse ba tey da ngay gis ne ne ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri na ay mbir yoo xam ne ne daawu koon dénk sax paay mais ay jeunes la jël teg leen ci ci ci ci mission yooyu lu ci mel ni euh, mun naa jël Usaama ibnu Zayd moom ba muy am 18 moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk armée boo xam ne ne ay mag ay pas ñu ngi woon ci biir armée bi waaye jeune boobu la jëloon jiital ko te moom mooy dernier xare bi nga xam ne moom la takkoon avant muy génn àdduna mooy dernier dernier armée bi nga xam ne moom la moom la defar avant muy génn àdduna pare jeune la ko joxoon naka noonu tamit boo jëlee lu ci mel ne euh, Mus'ab ibn may ñu bëri ci jeunes yi xamuñ kuy Mus'ab ibn may boo bëggee xam histoire mu Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr dafa nekk benn jeune boo xam ne ne ñun lu ñuy wooyee suñu jamono mooy fils à papa dafa nekkoon koo xam ne ne papam milliardaire la woon yaayam milliardaire la woon moom amul woon lu mu doon gérer lu dul lan leen rek moo nekkoon liggéeyam xaar ba papam ak yaayam génn àdduna mu doon alalam mu doon seeni alal daal di nekk milliardaire waaye teewul nga gis yaayam ak papam moom rek nañ amoon kon mu nekk fils unique ñu ko doon gàtte façon parfum bu nekk ñu ko loon jëndal te xam na ne Mus'ab ibn Umayr bu rombaan Màkka dem bu ñu xeeñcoo parfum bi dañuy xam ne moom la parce que moom rek moo amoon alalu mën a xeeñoo genre parfum yooyu façon solu yu mu doon solu ci jamono yooyu tamit waa Quraysh bu ñu amoon genre assemblée comme ñeneen ñoo xam ne dañoo invité dañ leen invité ci yeneen dëkk bu ñu bëggoon rafetal seen seen kii bu ñu bëggoon gars yi fonk leen ñeneen nga xam ne xamuñ leen bu ñu bëggoon gaa yi fonk leen dañuy invité Moussa bi mu mu ñëw toog ak lu mu solo mu taaral seen jotaay ñu xam ne ne jotaay bii am na maana ndax ni mu doon solo ak classe sociale am waaye Mus'ab ibn loolu noonu mu amoon yëpp bis ba mu ne ne dafa ba mu bis ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko ci la ko yaayam ne ko dootuma la defalati dara soit dangay din din génn ci diine bi wala dootuma la defalati dara papam tamit waxaalewuñu ko moom mu ne mukk xalaatu ko nga gis na ne loolu du ko jural lan ñu nangu ci moom lépp loo xam ne dañ ko ko defaloon déshérité ko moom mu dëgër nekk ak yonent bi sallallahu alayhi xam ne ne ku imaginer ki tàmmoon dundu luxe ki tàmmoon la belle vie dem ba la xam ne ne nit ñi bu ñuy dagg ay mburu yu wow da koy bokk ñoom di sol ay yére yoo xam ne ne yére yi genre manteau la waaye manteau bi fu nekk la xottante moom fu nekk la la am fu xotteeku ba ñu ñaw ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bés gis na ko jooy mu ne damay xal li ma tax ma jooy mooy mooy la fekk ma xalaat Mus'ab bi dund bi mu doon dund ak jamono ji dund bu muy dund daal di wax saxaaba yi na leen pour yéen ban dund moo gën ndax dund yéen jékki-jékki seen àdduna bi tijjeeku ci yéen alal yi bari ngeen nekk seeni mbir wala dund bu metti bii dund bu ñagas bii ngeen di dund moo gën seen Ali ibn Abi Talib ne ko ah ñun de lu ñu man de lu ma jàpp mooy ne nit ki bu amee alalam maam ubbiti ubbi bi bu amoon nga xam ne ne nit ki dafa am alal nekk ci nekk ci bànneex foofu laa yaakaar ne ba foofu lay gën a mën a jaamoo yàlla yonent saa sam ne ko déedéet boobu lay gën a metti ci moom parce que nga war a gere millions yi war a gérer àdduna fitna yi day gën a bëri ci sa biir xol pour nga pour nga pour nga jub foofu lay gën a jafe te loolu xam nañ ko mu ne waaye dund bii ngeen di dund moo gën ci yéen donte moo dafa metti mais moo gën ci yéen Mus'ab ibnu Umayr dafa bokkoon ci ñooñu moo tax Saad ibnu Abi Waqaas nettali ne man fekkee naa jamonoy Mus'ab ibnu Umayr fekk mu ne am na ay nit yoo xam ne ne ci ñun parce que Saad dund lu yàgg ba après yonent bi sallallahu alayhi wa mooy nijaayu yonent bi sallallahu alayhi mu daal di wax ne fekkee naa jamonoy Mus'ab ibnu Umayr fekkee naa jamono mooy jamono yi nga xam ne dañ leen embargo woon trois ans mu ne fekkee naa jamono yi nga xam ne ne Mus'ab ibnu Umayr der bi danaan teggeeku comme jaan ndax peau bi dafa sensible woon ndax ndax famille bourgeois la nekkoon fils à papa la ak lu ñu doon dund jamono dafa met peut yére yi ñu doon yu mu doon sol la xam ne ne soit la tàmmoon dem ba loolu da doon xolli deram mu ne dañ leen toog sax jamono yoo xam ne dañ ko doon jàppoo ndax daaw woon mën a dox nga gis ne kooku xoolal nu mu dund après mu ne am na ñoo xam ne ne ci ñun dund nañ ak ñun te musuñoo mos neexitu àdduna musuñoo mos dërëm bu leen maanaam musuñoo am dara lu leen lislaam defal maanaam lislaam lu mu leen maanaam intérêt li nga xam ne moom lañ doon xeex ñoom lislaam fayu leen fii nii ci àdduna seen lépp àllaaxira nañ ko am mu ne loolu noonu ñooñu noonu bokk na ci mos Mus'ab ibn Umayr moom li mu waroon am fii ci àdduna l'islam lu mu ko waroon fay ci àdduna lekku ci dara àllaaxira la commencé dund li nga xam ne moom la ko l'islam fay alors que ñun nag fii nañ tàmbalee lekk te boo moytul àllaaxira boo moytul li fay des dootul dootul bëreeti kon nga gis ne genre jeunes yooyu te moom mooy ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo jiitu yeneent bi est-ce xam nga ne moom moo jiitu yonent bi euh, Medina jeune boobu parce que yoonu saa sam moom la yónni ngir mu ratisser terrain bi defar terrain bi mu nekk kon genre ambassadeur 17 ans à l'âge de 17 ans kon ba muy am 17 ans la dem Médinatul Munawwara daal di convaincre ni nga xam ne ñoo fa ne wane fa exemple bu leer ay paa lu nekk topp ko mu daal di wax yoonu saa sam ne gars yi dugg nañ ci diine bi mën nga ñëw te loolu mission boobu kan la ko dénk jeunesse koo xam ne moom ci digg ndawam 17 ans nga yaa ngi ci sa digg ndaw kooku muy génn àdduna ci xarit Uhud ba muy am vingt ans la génn àdduna ci xarit Uhud mooy deuxième guerre bi nga xam ne ne moo amoon entre Quraysh ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk guerre bu metti nga xam ne saxaaba yu gën a euh, màgg ci saxaaba yi foofu nañ génne àdduna lu ci mel ne Hamza ak ñeneen Mus'ab ibn Umayr bi ca la bokkoon moo tax moom bañ koy suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy ndaxte yére bi nga xam ne moom nañ ko doon suulee da ko jotul ndaxte buñ ko indee ci tànk yi bopp bi day feeñ buñ ko indee ci bopp bi tànk yi day feeñ gars yi daal di jooy ni imaginel ki nga xam ne ne moo nekkoon moo doon dund dund buur dund prince biir Quraysh mosul manqué yére tey bañ koy suul yéreem daa manqué loolu lan lañ ci jànge mooy jeune jeune boobu lan la gis ba loolu jaral ko mu bàyyi luxe boobu comme li ñu doon waxtaanee ci wàllum muñ lan moo ko war a jaral ba mu bàyyi dund luxe di dund dund boobu dudul lan bëgg defar société bëgg participer ci ñi nga xam ne ne ñoo ñooy jëmale lislaam kanam wala gis na fi benn mbir boo xam ne gis na ne lii mooy lu gën li nga xam ne moom nañ war a dund par rapport ak société bi fi mu ne ni ñuy dundee mu impliqué ci boppam mu dund ci lu ne fi ne li ñuy waxtaanee nii bëri na ñoo xam ne ne dunduñ ko mais moom xoolal lu mu ko dundee ci anam bu mu ko dundee fii sax dinga mën a euh, di nga gis koo xam ne parent am dina ko commencement bi dina ko xaw a xeex mais du tee dina continuer di ko defal as tuut muy comment muy continuer di dund mais xoolal kii parent am dafa dagg lépp loo xam ne ne mooy li mu ko doon defal mu nekkaat pauvre imagine ku nekk ci ci ci ci ci gloire nekk ci ci ci richesse nga jékki-jékki war dugg ci suuf ba nga xam ne ne dund bu ñagas ngay dund nekk lu yomb léegi nag loolu lan moo tax loolu ñu ñàkk ko parce que da ngay gis ne ñun suñu jamono nit ki bu amee xamal li ma la wax gis nga âge yi ma la doon expliqué. 17 mm-hmm. ans 20 ans la génn àdduna. ci ci 20 ans la defar maam dundam ci 20 ans la def lépp loo xam ne mooy mission bi nga xam ne ne yàlla moom la ko doyee en tant que jeune. ci jeunesse am boobu nga xam ne daanaka set ans 20 ans gis nga euh, instant boobu noonu ci jeunesse am xool lu mu jëriñ l'islam génn àdduna comparé ko ak ñun léegi suñu jeunesse la xam ne nit ki bu amee 17 ans ci lan lay nekk. kay eh, eh, hmm? eh, hmm. <laughs> li nga wax kay moom ak jamono ji waaw. dafa mel ni nga naan yàlla yàlla ndax âge yooyu nga ma wax noonu muy 17 yooyu noonu jëm 18 ans hmm. tey fii boo ko amoon fi toon nii rek xaw a euh, topp diine gi tuuti gars yi dañ naan moom moom moom ah kii daa boo xamul boppam xale bu ndaw. ñun suñu jamono jaa jàpp nañu gone moom. gone daal ay bolo ngay nekkee. dem soirée dem piscine. ñun daal jeunesse loolu lañ ko jàppee. jeunesse moom. ñun jàpp nañ daal jeunesse moom ci caaxaan nga war a nekk. li ma si gën a métti moom dañ daal da ngay dox sa ndaw. waaw da ngay dox sa ndaw ngay dox sa ndaw rek am na nu ñu koy waxee toll ci. waaw def ko. wees ko ba waaw mais yow xam nga jeunesse. te loolu li ma si gën a li ma si gën a euh, tiital sax imam mhm. day gis ku topp ndawam. gis koo xam ne jamonoy. Euh, avant ñu am indépendance ba léegi mu ngi topp ndawam ba léegi moom jàpp na ne moom ci ndaw ga mu nekkoon. wallaay waaw ah, loolu moom imaam yéeme na di. ah lu doy waar la. lu doy waar la li nga wax ni noonu la nit ki day nekk jeune day nekk toll ci jeunesse sem mooy futuwa l'islam da cee bàyyi xel bu baax te loolu la soxla fi mu ne Seydina Omar l'islam soxlawul nga foowee sa ndaw ba nekk màgget retraité dem di xuloo ak ak ak ak jeunes yi ci jàkka ja lislaam soxlawul loolu lislaam li mu soxla mooy yow comme société bi nu mu la soxlawee ba ngay nekk jeune embauché la ba keroog ngay retraité mu bàyyi la nga noppal l'islam tamit noonu la la soxlawee boo nekkee jeune dafa soxla sa jeunesse yow parce que jeune moo mën a defar lu bëri màgget leen la la mën a defal amal la ay idée utal la ay relation mais jug defar loolu ci jeune nañ koy séntu léegi nag moo tax nit ki bu tollee ci jamonoy jeunesse tal parce que jeunesse mooy am temps jeunesse day am loo xam ne da koy am màgget daa am loo xam ne da koy am jeunesse day am temps day am day day day am temps day am doole mais du am xaalis n'est-ce pas du am xaalis naka noonu tamit euh, expérience am du bëri alors que màgget dina am do du peut-être dina du am temps nest dina am xaalis mais expérience lay am donc kenn ku ci nekk dafa am fenn fu ñu lay soxla léegi nag mënuñoo comprendre koo xam ne ne da ngay topp naan damay damay foo sama ndaw damay dama damaa nekk xale dañ koy gis ay jeunes de soixante quinze ans koo xam ne ne da ngay wax mu naa la ay je un jeune de soixante quinze ans et que la jeunesse c'est dans la tête alors que loolu parce que soixante quinze ans yooyu après léegi yow lan nga rapportel l'islam lan nga rapportel sa rek sa dëkk boo ko boo ko xoolee lan nga rapportel sa dëkk te boo ko bëggee tamit instant yooyu bu fekkee yaa ngi dem ba am soixante quinze ans soixante ans doog ko doog a gën maam doog ko doog xalaat instant yooyu c'est trop parce que lan parce que peut-être am nga idée bi am nga xaalis bi mais amoo doole bi amoo kàttan bi presque doo mën a taxawal lu bëri parce que da ngay rendre compte ne li nga bëgg taxawal da ngay soxla ay jeunes mais jeunes yi bu ñu amee même xel bi nga xam ne yow moom nga amoon ba ngay nekk xale mais doo mën a taxawal parce que boo leen ne leen boo leen waxee na leen kaay leen ci diine bi dañ naan la bu ñu melee ni yow dañ naan dañuy foo suñu ndaw moo tax ngay mën a gis nag problème yu bëri ci yenn domaines yi surtout ci jàkka yi ay pas yoo xam ne ne xëy na ba ñuy nekk xale jànguñ ba dem ba nekk màggat lu seen naa Omar di wax naan na ngeen jàng balaa ngeen di nekk kilifa ndax moom. ah moom kay léeg nga dem ci ñoom ci jàkka yi wala si jumaa yi moom. di hmm. gis benn paa boo xam ne yow daal day xorobul lool lool lool doo xam lu muy def lan la moom daal yow doo xam da nga naan kii xom xom fan la jógee sax da nga naan kii isa Sénégal lañ nekkoon. Hmm. parce que hmm. parce que parce que lenn mooy des. muy cër bi lañ lay bàyyi. du ñu nga nekk foofu di xëccoo ak jéem a téye ceew keesu jàkka beeg ak yu demee noonu de ce fait léegi jeunes yi ñoom boo moytul yow laa waroon encourager jeunes yi. jox leen ñu téye jàkka ji ñuy gérer jàkka bi boo gisee loo xam ne ne du noonu nga orienté leen ba ci sax imaam yi nga xam ne dañoo war a gën a favoriser jeunes yi parce que da ngay xool société bi nga ne bu fekkee société boo xam ne ne daanaka paa rek ñoo fa bëri d'accord boo fa falee ay paawu imaam peut-être baax na ba tey mais boo xoolee ne yow sa jeunesse jàkka ji ajjuma bi surtout ay jeunes presque rek ñoo fi ne fexeel ba nga xam ne ne ki nga xam ne moom mooy xutba wala ki nga xam ne moom mooy yor eh, imaama bi da nekk ay jeunes yoo xam ne ne ñu conscient parce que ñoom ñooy mën a jaxasoo ak yeneen jeunes yi nga xam ne ñooy ñëw ñooy mën a waxtaan ak ñoom ñoo leen di mën a orienté ñooy mën a ñoom ñooy mën a xam li nga xam ne moom moo moom moo xew mais tamit il faut que jeunesse bi tamit ñu nekk ay jeunesse yu conscient warul nekk jeunesse boo xam ne ne comme li nga ko waxee ay bulaw nañuy xalaat ak affaire rayante maanaam rayante c'est-à-dire dóorante din affaire yooyu yooyu taxul ñuy wax wala jeunesse boo xam ne ne moom lenn rek lay xool affaire luxe affaire buzz affaire bon man instant bii nii su ma amee sama benn iPhone 4 ak benn nangam naa la xam ne daanaka seen bopp luxe su ñuy jéem a xëcc mais lu jëm nag ci defar société bi lu jëm ci defar jikko yi ñoom loolu seen yoon nekku ci donc loolu tamit day renvoyer tamit ci jikko yi nga xam ne moom ñoo moom la jeunesse war a am jeune boo nekkee jeune ci koñ wala ci dëkk da nga war a fexe ba nga xam ne ne sa jeunesse da nga koy mettre euh, au service maanaam da nga ko war a mettre ci service su dëkk bi soit ci lislaam wala sax rek ci société bi gis nga ne euh, société bi gars yi nee kat dafa dafa dañoo war a def ay sensibilisation ci nangam yow impliqué wu ci bu fekkee ay loo xam ne ne par exemple euh, action citoyenne yow tamit jéem ci impliqué sa bopp nga xool lan nga mën a rapporter sa dëkk waaye bul ne rek man xale laa man daw laa kon dara dara waruma boo nee ba am vingt ans nga jàpp ne xale nga c'est parce que tu n'as rien foofu nga war a tàmmali di xalaat ci sa dëkk di xalaat ci sa bopp di xalaat ci sa ci sa avenir xoolal par exemple dama jox quelques exemples rek ay imam imam Malik bu siiw bi mm-hmm. pour yéen dafa dem ba nekk pas doog a jàngale ndek ñu koy doog a wooye imam Malik mm-hmm. ba muy am 17 ans ba muy am 17 ans la tàmbalee jàngale ba lu muy màggete yaa ngi dégg imam Chafi'i gis nga ko ba muy ñëw ci imam Malik daanaka ay 9 ans 14 ans yooyu noonu la nekke imam Malik ba muy am 9 ans la ko nga gis xoolal rek imam Malik rahimahullah ba muy am 9 ans yaayam da koo solal yére bu rafet parfum ko solal ko turban rafet defaral ko ba mu rafet mm-hmm. ne ko ne ko demal ci rabia nga jël ci moom tegginam balaa ngay jël ci moom xam-xamam ba mu newee ci Rabia ñuy ko waxtaana moom wax ko mais voilà dafa ñëw pour jàng si Rabia dafa ne ko yow yow xale bi maa ngi lay dénk benn mbir da koo xool rek xam ko xam ne kii boroomi mbir la mu ne ko na nga defar sa yéene sellalal sa yéene gis nga yarkat lu muy mel moo ko mag mais xoole lu mu koy yare en tant que jeune ba muy nekk xale commencé di wax ak moom wax xoolal yaayu imam Malik wax boobu mu wax imam Malik ba léegi nii man maa ngi koy nettali ay imam ñoo ngi koy nettali demal ci moom ci ki ngay jàngal nga jël ci moom jikkoom balaa ngay jël ci moom xam-xamam te dafa kon dafa tànn jikko waa ju koy jàngal donc éducation wu xale bi dafa am solo nee na kan mooy éduquer jeunes yi. loolu tamit am na ci solo de. kan mooy éduquer jeunes yi. waaw que jeunes yi tey léegi tey fi toll nii moom. kenn même léegi kay jamono ji kenn daa éducatul sax nag <laughs> ndax léegi jeunes yi ñoo ngi ci téléphone yi ñoo ngi ci iPhone yi bon réseaux sociaux yi Instagram bi TikTok donc ci yooyu lañ nekk quoi branché quoi nekk ci waaw waaw voilà quoi xam nga waaw di di la wax di wax ak yow di damm ay r léegi eh, léegi da ngay wax ak ni sax da ngeen wax ba dem doo xam li mu wax daara ku la woowoon ne la bindal li mu wax mënoo ko bind ko bind moom loolu moom moom moom lu doy waar rek doon mooy influenceurs yi yoo xam ne comme mm-hmm. euh, comme sëñ Mbaye lu mu doon wax mm-hmm. coach yi mm-hmm. coach yoo xam ne ne mm-hmm. ñoom seen seen dund jatu jagul seen i xalaatin jagul ñoom ñooy taxaw ne dañuy jàngal nit ñi àdduna donc nit kiy jàngale tamit foofu ñu xam ko moo tax nga gis mu ne ko demal ci rabian ba koo tànn donc ku jigéen tamit dafa am yaay dafa am tamit rôle bu mu war a joué ci jeunesse nekkul foofu di ko bal bal maam di ko bay bayal naan ko noo xale la bàyyi leen ko xale la xale la xale la ba kër muy am di ans di gàddu téeréem dem jàngal boppam parce que day dem ba xam ne ne man dañ ma sa dañ maa seetaan ba heure bi donc jigéen tamit wala sax parent ci boppam dafa am responsabilité ba côté boobu ci bu yoree xale mu baax bañ ko jàppee rek benn xale nii waaye da ko war a jéem a defaral dem defar conscience su xale bi moom la yaayu imam Malik def ba mu demee ci Rabia gis nga lu mu ko wax lu mu ko njëkk wax rek moom mooy lan mooy ne ne ko xale bi yow defaral sa yéene parce que am na benn xale bu fi nekkoon fii nii daaw yéen ñaar yéen a tolloo neuf ans la amoon mais dafa bëggoon xam-xam di topp boroom xam-xam yi moo tax mais problème bi moom mooy xale boobu dafa teel a génn àdduna malheureusement mu ne mais ba mu génnee àdduna boroom xam-xamu Medina yépp a fekkee euh, kii woon euh, bañ koy denc robam ndax ñépp dañoo xamoon yéene bu mu amoon ci xam-xam ak boroom xam-xam yi nu mu leen bëggee woon tax ba borom xam-xam yi bis boobu dañoo bàyyi lépp lu ñu doon dem lépp lu loon doon def fekkee robu benn xale bu tuuti bu am 9 ans kon xeebuñ ko. Mm-hmm. mais dañoo gis ne kii yitte bu mag la amoon donte xale la mais yitteem dafa kawe. Mm-hmm. mais xool lu yàlla di def Rabian wala keneen ci boroom xam-xam yi gént xale bi. Mm-hmm. mu ne ko ba ñu géntee xale bi dañ ko laaj na ko lan la yàlla defat yow. mu ne ko def maa jéggal boole ma ci darajay borom xam-xam mu ne ko lan moo la may lool mu ne ko parce que dafa ne ma suñu borom dafa ne ma dama lay boole ci borom xam-xam yi parce que yéene bi nga amoon mayoon na la ci boo dundoon continuer woon dund nga bokk ci borom xam-xam yi nga gis mu jàngal ko imaam Malik xale bu ndaw donc loolu day wane lan day wane ne nit ki bu nekkee jeune bu nekkee koo xam ne ne am na doole warul nekk koo xam ne rek day consommer toog rek noonu du jéem dara ci ci àddunam du jéem a changé dara ci li nga xam ne moom parce que du ñu ay mala tamit ay nit nañ yàlla daf ñoo dénk àdduna bi bëgg tamit ñu rafetal defar jéem a defar àdduna bi suñu kéttalaay suñu kéttalaay kàttan donc loolu jar bàyyi xel la ci wàllum jeunesse mm-hmm. jar a bàyyi xel la ci wàllum jeunesse bañ ko rek jàppee benn affaire bu ndaw foowee ko ba nga xam ne ne après dara du ci deseti boo paree dem ci jàkka yi wala dem ci euh, parti politique yi di di fa xeexal jeunesse bi di leen xañ jeunesse yi jeunesse bi jeunesse bi bu ñu jékki-jékkee ni am benn idée boo xam ne yow xalaatoo ko woon sax yow au lieu nga jàppale leen ngay xool naka ngay fexe ba nga xam ne ngay da nga leen di mettre des bâtons dans les roues pour daaneel seen idée après foofu ngay mujj waaw loolu bi de na solo ni ñuy waxati ndax ndaw moom mooy réew mm. réew moom boo ko xoolee ci ndawam rek mën nga xam réew mi fa la jëm tey réew yu bëri li tax ñu développé lu du dara lu seeni ndaw rek. Mm-hmm. ci seeni ndaw rek. Mm-hmm. boo xoolee chinois yi ni ñuy taxawoo seeni ndaw. Mm-hmm. Ah, seen éducation ni ñu ciy taxawee. moo tax fi ñu toll ñu toll fa. ñun nag léegi kiy éduqué moom mooy téléphone bi mooy éduqué léegi. parents yi dañoo daw seen responsabilité bu baax a baax a baax moo taxit dëkk bi lu ne fi di am rek wallaay xale bi mu xale baa ngi def neeg ah. xale bi lay def ak moom koy chaque jour bu bees chaque jour ñu génn bees vidéo yu yooyu xoolal genre ay yoo xam ne ne yu ñàkk fayda ay xale nga ci fekk 14 ans xale yu ndaw xale yu ndaw yoo xam ne ne xoolal rek yow temps temps temps xale yow lan nga doon xalaat Eh, man kay 14 ans yow yaa ngi ci mbedd bi. di di di dàqeeg. di dóoranteeg waaw yooyu yooyu kay moo nekk sa bopp yooyu sax du nekk sa bopp mais da ngay gis ne 9 léegi nii. non xale yi 9 ans 14 ans. gars yi boo moytu boo gëstoo seen i ñoo ñoo ñoo ngi bi ñoo ngi toj dëkk bi. waaw ñoo dañ leen waroon orienté seen jeunesse. Mm-hmm. yaakaar naa ne feneen lañ leen waroon orienté seen naaw war. waaw mais xam nga rek léegi parent amatul xam nga bu njëkk euh, bu njëkk waajur moo moo amoon. Mm-hmm. léegi parent moo waaw. xam nga parent moom day naaw rek. différence waaw xam nga waajur moom waajur. waajur bu njëkk dafa amoon ndax waajur moo doon topp doon euh, doomam. Mhm. di xoolal jikkoom. Mhm. chaque chaque jour mën naa ne mu natt di su koy xale bi. di ko orienté. Mhm. di ko teg ci yoon lii baax na lii baaxul. di ko teg ci yoon ba xale doon magum jëmm. xale bi bu génnee. pa waajur lay gisaat. waajur bu génnee këram dajeeg moom ci mbedd bi kooku tamit di ko jubbanti ba keroog muy dem ci école ba wala muy dem ca daara ja maanaam génnee gis gis tamit beneen waajur beneen waajur xam même juru ko sax waaw mais waajur la ci këram macha kooku lay gis tamit hmm. kooku nag diir bu muy tasee moom ci mbedd mag yooyu yëpp lu mu gisul loo lu mu gis loo xam ne xale bi moo ngi koy def du naka sudul noonu hmm. moom dina ko teg ne ko hmm. doxaleen nangam waaye léegi nag parent moo am xam nga parent jamono yi yi may dem yi may dem ay camp caare mooy parents yi doon naaw <laughs> benn bi sax ci laa réeré ci laa mos a réeré mooy ci parent yi léegi parents moom am parce que parents léegi mm-hmm. mooy parents ngay gis doomam di def naka su nool wala nga ñëw wax mu ne non mais non il faut la laisser. waaw c'est une fille ah c'est une c'est une c'est c'est damm eri quoi. waaw si eri. <laughs> bon xale la dafa war a toll si ci xale wu donc il faut la laisser quoi. Mm-hmm. xam nga léegi léegi droit de droit d'enfant am. xale bi moom am na sañ-sañ def lépp. xale bi moom amul lenn lu mu amul sañ-sañ def xale bi mën na caaxaan mën na dem boîte mën a tux mën a def na am na kenn du ko kenn du ko maam xale bi moom kenn du ko waññi moom mm-hmm. léegi nag loolu moo indi Sénégal fi ñu toll nii ñu toll. léegi ndaw yi daanaka ñoo gën a tiital see boo gisee ndaw yi léegi bu di jàng seen école tëj. njaw yi mel ne luy maam fu ñu doon jàngee fi nga xam moo leen jox xam ñu koy yàq. waaw loolu de jaaxal na ma. waaw fin bi jot. waaw école tëj. ñu ci bagage mhm. parce que jàngalekat amutul léegi. Mhm. léegi jàngalekat amatul. ki ngay jàngal yi ñaar yéen bokk génération. da ngeen di daje ci yenn milieu yi. amatul keesa. parce que bu njëkk loolu amul woon. Mhm. bu njëkk boo daan dajee ki lay jàngal da ngay daw foofu fépp. doo fa jege. mais léegi nag li am léegi jàngalekat amatul. éducation bi yàqu. Mhm. lool nag moo ñu indil fii ñu jëm nag. Mhm. te fi ñu jëm du furul furulu musiba rek. ndax xale yi tey jii nii bu subaa ñooy màgg ñooy nekk ci réew mi. xam naa moom kuñ fi fekk moom dëgg yàlla moom. ah dinañ dinañ la mais li nga wax noonu moom yi ma ci jàpp yu bëri na kon damay gis ne ne jeunesse bi tamit dafa am comme li nga waxee waajur waajur comme ni nga ko expliqué dafa tasaaroo ci yamul rek ci kilo jur kon kilo jur mooy aji jur bi waajur ñi nga xam ñoo jur te jur boo gisee jur lan moo tax ñu naan diw dafa am ab ay jur mooy ne daf leen di màgg daam daf leen di toppandoo sàmm leen et cetera donc ki nga xam ne moom waajur la mooy aji jur gi moom dafa am ñoo xam ne daf leen jur waaye jur bi rek nekkul rek loo xam ne dañ koy jur nii rek accouché ko bàyyi ko mu dem waaye dafa laaj tamit nga toppatoo jur bi loolu moo tax ñuy wax léegi nag li nga wax loolu la moom mooy ne comme parent bi moo doon yar wala waajur bi moo doon yar doomam ci biir kër gi fexe ba fu mu turne rek moom day gis parent day gis waajuram bu demee nag ba koy dénk ki nga xam ne ne mooy école bi ak daara ji surtout bu boobaa transfert day mel dafa transféré li ko waroon ci ki nga xam ne moom moom moo nekk di ko jàngal kon normalement li ñu li waroon nekk tam moom mooy lan moom mooy école yi tamit dañoo am part de responsabilité ci éducation wu xale bi comme li nga ko waxee léegi dañuy enseigner mais éduqué wuñu dañuy jàngale mais yaruñu jàngale ak yar la mooy différence bi moom mooy ne da ngay nekk ak sa sa sëriñ wala sa professeur déjà premier premier problème da ngeen di bokk génération loolu sax mun na bañ a nekk problème bu fekkoon kooku moo la gën a conscient gën la xam àdduna mais da ngeen di bokk génération moom taneewu la ci wàllum xel donc du la yar xalaatu la yar moom lu muy xool moom mooy lan mooy xaalis bi nga koy fay moo ko ci intéressé boo ko ci boo ko boo ko fayee li nga xam ne moom la ciy am après pare na ci yar maanaam ndax yaru nga yaruwoo ndax tamit euh, li ngay jàng yaa ngi koy appliquer wala xam nga ko yoonam nekku ci naka noonu tamit loolu mooy tax ba nga xam ne benn yoon rek lay kaas mooy bu fekkee fayoo gis nga. Hmm. wala bu fekkee da nga koo ñàkkee moom teggin mais bu fekkee da ngaa keneen teggin yoonam nekku ci. bu fekkee tamit da ngaa yor ay jikko yu ñaaw yoonam nekku ci mais nag boo ko xasee moom dina nga gis mu mu réagir kon moom da ngay gis ne yar bi ci boppam ni ñu ko jël génnee ko ci éducation bi bu njëkk xoolal mais tamit loolu tamit état am na ci part de responsabilité ak ay droits de l'enfant ak yu kenn xamul yow bu fekkee nit ki bu fekkee euh, doomam deful lu deful deful lu yoon deful yoon voisin bi amul droit corriger ko naka noonu tamit prof wala ustaas bi koy jàngal bu ko dóoree ci li nga xam ne moo koy def àdduna bi yëpp nga gis ñu dal ci kawam kon xale bi mun a yaru parce que day def ay toj tajam lan lañu lan lañ lay tontu maa ko jur booy yar yaral koo jur et cetera donc loolu mooy tax nga gis da tamit jeunesse yi da ngay gis ne dañuy dem di jàng nii mais xoole école yi li ciy xew ak yenn daara yi ciy xew dañuy gis yoo xam ne ne mais da ngay jommi ci yàlla fi mu ne école tëj mais école bu tijjee ci ngay dégg yenn kaa yoo xam ne ne da ngay da ngay yéemu sax mooy tax ba nga xam ne léegi nit ñi bu ñu tëjee nga gis ñu jël table banc yi di damm ak di sànneeg loolu signe la boo xam ne day wane ne école ci wàllum éducation échec na fa naka noonu tamit daara yi tam am nañ ko ñu bëri ñoo xam ne ne yarul yar tamit dèjà comme ni ma ko waxee ci xadiisu euh, kii bi mooy nettaliwu imam Malik bi nit ki tamit dafa am comportement bu mu war a am pour mën a jàngale nekkul ku mën rek jàngale ñëpp a mën a jàngale nit ki dana am xam-xam bi du mën a jàngale parce comportement parce que genre kiy jàngale genre influenceur la ndax nit ki munoo ne damay jàng ci moom te te du ma jël ci moom benn jikko loolu mënta ne ni muy waxee di ko waxee ni muy doxalee di ko doxale moo tax nga gis ñuy wax na ne balaa ngay jàng ci boppam seetal ki lay jàngal jikkoom ndaxte na la leer na ne ki lay jàngal di nga sàcc ci moom ay jikko bu fekkee am na ay jikko yu baax moom alhamdulilah bu fekkee dafa nekk koo xam ne jikkoom dafa ñaaw moom maara day taale moo tax nga gis mag ñi pourtant ñu bëri ñoo nekkoon ay kanfoore waaye daañu woon jël n'importe qui dañ leen xool koo xam ne nag kanfoore la waaye am na ay jikko yar nañ ko ci yar boo xam ne ne yar bu baax la ñu doog ko jël pour mu dénk ko dénk ko seeni doom wala ñu engagé ko pour muy jàngale ci ci seen daara mais pas koo xam ne ne moom benn businessman la rek boo xam ne moom. mooy ñëw léegi jàngale ne koy war <laughs> léegi moom oustaz. léegi njàngale moom ay businessman kese la pour nga ja jàngalekat yombatul de. yombatul de léegi jàngalekat moom lu jafe. boo ko doon wër ni nga ko ni nga koy waxee nii sa jàngalekat boo ko daan gis. boo eh, nekkee ci mais jàngalekat comportement rek moo lay xamal ni kii jàngalekat la. comportement rek da doon jàngal nit. wallaahi wallaahi. doxalinam da doon jàng nit. surtout nag loolu yar ci ci xale yi. wala léegi xale yi bu fii dóoroo leen. waaw duñ xam li nga wax. te am na ay temps yoo xam ne xool chinois yi. waaw waaw mais gis nga wax bi ñuy wax ak yow wax ak yow rek te ngay xam waaw te ngay nite léegi nag loolooy pro loolooy suñu problème hmm. parce que léegi ñëpp démissionné nañ kon hmm. kon parent bi démissionné na euh, enseignant bi démissionné na état bi fay na hmm. donc loolu moo ñu indi lii ñun moom ñun ak xale moom jamono ji fi ñu toll mooy su ma amee sama doom donc bu soxlaa naa fexe ba mu jàngee ci école yi kawe yi muy làkk ay R di damm ay R di ko lekk xaw ma da koy wan xaw ma lu mu koy def <laughs> waa iPhone bu génn wala téléphone bu bu cher bu génn ma jëndal ko ko jëndal ko ko ay yëre pare nañ ci moom ah xale bi moom loolu lañ séex ak moom pare nañ ci moom donc xale bi bu génnee dañuy jékki-jékki ñun def na nangam ku ne dar sa gémmi loolu nag lu ñu ko indee nag lu kese mooy yar gi rek waaw yar gi rek lu jar a bàyyi xel la aussi jeunesse moom. lu lu lu jar a bàyyi xel la comme li nga wax noonu tamit xam nit ki bu fekkee dañ koo yamale lu dul dundam bi yëpp ñu tënk ko ci portable tënk ko ci oto bu rafet tënk ko ci soxna rek bu boobaa nit ki defuñ ci moom nite dañoo yaakaar ne def nañ ci moom nite waaye defuñ ci moom niti xelam utiliser wuñu ko ci mu defar société bi ci mu amal njëriñ société bi moo da ngay dégg yenn yi ay njëriñ loo fekkee ak ay man. mag du fecc ci yàlla naa dee et kon yooyu dafa nekk yoo xam ne ne ñun dañ koy jéem a jëmbat suñu suñu ndaw yi te nekkul ay idéologie yoo xam ne parce que xale bu boo ko ma boo ko yaree ci loolu ne moom intérêt la war a xool warul xool intérêt dëkk bi warul xool intérêt diine bi mais bu màggee moom moo tax ngay dégg muy triande diw def lu nekk diw et cetera yenn jikko yu ñaaw yi moo tax nga gis mu koy am donc munoo xaat ci moom mu yaru parce que parent tamit comme ni ma waxee munoo di xëy julli munoo di xëy sa yoon nekkul ci diine bi après nga ne sama doom dama bëgg mu nekk ci diine bi di julli munta ne donc yow tamit foo nga defar sa bopp ba nga xam ne ne jeune bi ci boppam moom day gis ne ne man nii laa war a doxal ndax xale day sàcc xale day sàcc ay jikko parfois nga yar sa doom loolu nag tamit ndogalu yàlla la maanaam da ngay yar sa doom comme li mu wa li nga ko war a yare teg ko bàyyi ko ci mbedd mi mbedd mi ñëw yàkkal la ko donc foofu yow tamit ngay fexe di canaliser yar bi ci boppam bul ne rek man yar naa samay doom yar naa samay doom mais tamit jéemal xool ba xam est-ce que yar boobu di ko entretenir est-ce que mu ngi continuer di waxtaan ak sa doom jeunesse loolu la tamit jeunesse dafa soxla ñuy waxtaan moom di waxtaan ak sa doom di xam ci lan la ne waaye da gis koo xam ne day bàyyi doomam ci lan la ne sama yoon nekk ci xaw ma ah demal laaj ko ba xam loolu du du du yoon mais li ñu war a def mooy dëkk bi ci boppam dañoo war a wax xam ak jeunesse boobu ci boppam jeunesse bi tamit xam tamit ak wala li nga xam ne moom la leen dëkk bi di doye moom la leen diine bi di doye ñoom tamit ñu fexe defar seen bopp ndax doo dem ba nekk màgget di defar sa bopp ndaxte boobu dëgër nga moo tax nga gis xanaa gisoo seetluwoo fi ne bu ñu toogee waxtaan yow mi bu ñu toogee ci sa situation yi ak benn xale boo xam ne am na 9 bu ñu waxtaanee ci affaire julli guddi mais yow balaa nga koy def yow ma xam ne mag nga ba pare. balaa ñu lay convaincre wala balaa ngay ngay jug di appliquer par rapport ak xale bi comme yàlla ak yaa ngi am na jeune ay ay mag yoo xam ne ne fi mu ne boo leen waaree waxtaan leen ci affaire julli bu fekkee daaw woon julli wala waxtaanee ci affaire yu julli pour ñu jug rek julli tout un problème mais xale bu daaw woon julli boo ko waxtaanee ci affaire yu julli rek tis tis baar bi nga gis mu commencé julli donc xale moo gën a gaaw ci appliquer sax ci côté diine que mag donc nit ki moo tax ñu naan lax comme sëñ Tuubaa mi ko waxee ci euh, li ci mel ne tasawul nit jeune bi bu fekkee dafa dafa ku màggatee ku loo màggatee ci sa ci sa ci sa maam loo tàmm ci sa ndaw rek moom ngay màggate bu fekkee comme li nga wax ay baal yi ah, ay ay concert léegi kay ah. léegi kay oustaz xale yi xeeb nañ sax ay baal yi léegi xale yi def nañ ci ay baal de di nga yi léegi <laughs> euh, xale yi dematuñ ci de ah. xale yi léegi ñoo ngi si appartement yi appartement léegi waxuma la appartement yi appart bu doon appartement kese mu neex léegi xale yi dañuy nekk ci appartement yi muy góor ak muy jigéen ñu wut mbir yoo xam ne imaam. buñ ko buñ ko logee. maanaam buñ ko logee. Mm-hmm. boo demoon génne gaynde ya nekk ca parc an waaw mm-hmm. boo génnoon gaynde ya nekk parc an xale yi mën nañoo jàmmante ak moom. te duñ sonn. <laughs> maanaam ci appartement ba la ñuy nekk ñoom mel ni ñu mel ni ñu mel ni ñu tàggoog seen i sago. Eh, loo xalaat nag ci lu bon lu ñaaw teef danañ koy def. maam dinañ def ba def loo xam ne sax ñoom boo leen waxoon lii yéen ko def dañ naan déedéet. non waaw léegi xale yooyu lañ xewal. léegi dematuñ ay soirée de. bu ñu ay soirée di daan léegi léegi bàyyi léegi ab ñu ngi ci appartement yi léegi am na ci ay quartier yoo xam ne boo demoon fitoon yi bëgg a wut appartement. nga am sa benn gan bu jóge Europe ñëw wala fu mu dëkk du ko am. ndax ñee ndax xale ndax réservé nañ ko. surtout loolu réserver nañ ko bu yàgg nekk ci biir nag loo xalaat loo xalaat loo lu sa xel dem rek xale ñoo ngi koy def ci appartement yi. imaginer léegi ñu ne jeunes yooyu ñoo war a defar dëkk bi imaginer jeunes yooyu naka nañuy mën a defaree dëkk bi donc loolu tax loolu moo tax tamit responsabilité boobu tamit dañ ko war a bàyyi xel ki nga xam ne day loué ñooñu xam na ne ay xale nañ xam na ne ay jeunes mënul wax ne xamul li fa xew donc moom tamit responsabilité am la ak ñeneen ak ñeneen donc mënoo jël ay jeunes bàyyi leen foofu lu nekk xaj na fa imaginer pion yooyu ñuy naan. di yàq seen i ndaw mais dee sax xañ na fa xanaa gisoo événement boobu boobu xewoon temps yële xale bu jigéen bi ci génn àdduna ak yooyu ak yooyu donc yooyu jar a bàyyi xel la jeunesse nekkul loo xam ne kon dañ koy foowee mbir la boo xam ne ne nekkul ne man xale laa rek kon lu ma neex def déedéet chez jeunesse boobu yàlla joxu ko pour zéro dafa am li nga xam ne ne moo tax mu jox la ko benn temps bu gàtt la mooy mel ne ñu joxal la un milliard ngay noos mais bul jàpp ne un milliard bi du mës a jeex di nga di nga xëy di leb cent franc boo bu fekkee gérer woo ko ni nga ko war a gérer donc jeunesse tamit même chose la dafa sacré dafa dafa cher nit bu ko amee da cee war a góor góorlu fexe ba nga xam ne ne balaa muy màgget dina réaliser lu bëri ci dundam surtout sax ci côté diine bi réaliser ci lu bëri ba nga xam ne ne bis bu demee am ba am 40 ans 45 ans ba 55 ans la xam foofu la jeunesse presque di jeexee fekk na moom xelam dal na ci diggante moom ak boroomam xelam dal na ci li nga xam ne moom mooy dundam parce que lépp lu ko waroon ci jeunesse am fooweewu ko def na lu mu mënoon ba tollu foofu noonu de ce fait moom après lan lay doon royukaay royukaay mais yow bis boo toogee toppee sa jeunesse ci affaire appartement ci affaire nangam sa conscience baaxul boo màggetee imaginel ban genre u màgget ngay doon pour yow da ngay nekk màgget boo xam ne day bëri xam-xam abadan da ngay nekk màgget boo xam ne modèle ngay doon déedéet doo nekk modèle parce que boo waxee lañ naan la ah kii moom nañu may parce que ba muy nekk jeune comme ñun moom ci ñu nekk nii ci la nekkoon kon moom dafa war a noppi donc yow boo nekkee jeune dafa am modèle boo xam ne moom war a wane bul ne man jeune naa rek lu ma lu ma lu ma neex lu ma neex def n'est-ce donc yaakaar naa mën nañ tàggoo ñu ñu ñu yem foofu waaw <laughs> amati na solo waxtaan bi moom amati na solo bu baax nga wax ne jeune moom Euh, dafa xaw a kii ndax euh, jeune moom mooy ab réew rek. Mm-hmm. waaw daa mel ni waxtu bi nag bari nañu ay leçons yu ñu ci mën a tiire. waaw bëri na ay yu bari yu ci mën a tiire di ñax jeunes yi nag nañ déglu te xam ni jeunesse du ay caaxaan jeunesse du dañu la def jeunesse rek pour ngay taxawaalu rek fu ne nga dugg fa naan boo màggatee loola wóor ni da nga màgget. waaw dara wóor na si xam ne maa ngi am sama xarit boo xam ne maa moom ñoo ngi tolloo âge. Mm-hmm. temps yi rek muy génn àdduna te jeune la. Ah, amagul sax 30 ans moom kay moom kay du jeex. waaw ah, amagul sax 30 ah, ans génn àdduna am mhm. ñoo xam ne ñeneen. yoo xam ne ñii 15 ans ñii 17 mhm. ans ñii 18 ans. waaw daal si loo mënti nekk rek. dañ jéem nekk ci njub rek waaw loolu kese mu am solo dund ci njub ba génn àdduna ci njub ndax nekk ci njub doo nga wóor nag waaw nekk ci njub la xamoon nga defoon lu dëng ci fii nii ci koñ bi rek mhm. léegi tey moom coow li bari mhm. donc di leen sant di leen gërëm di wax wax ji lu ci jub suñu borom la lu ci dëng xamoon ni man maa doon jëm alhamdulilah donc ñoo ngi leen di jox daje beneen yoon incha allah ñu doon waxtaan tey ci wàllum jeunesse ngeen déglu ko bu baax point yi nga xam ne moom lañ ci développé ci wàllum diine ndax noonu tamit ci wàllum société ci boppam ñu xam ne ne kon ci tënk jeunes nekkul loo xam ne ne euh, lu ñu war a foowee la waaye dafa war a nekk loo xam ne lu ñu war a utiliser la ci côté bu baax bi donc euh, ñu ngi ciy jéggalu ci kàddu yi bu baax lépp loo xam ne ne ay ñagas-ñagas la ñu xam ne ne suñu jëmm yu xeeb yi ku matadi moom buy def faw mu ànd ak lu matadi te nit dafa matadi kon ñu ngi ciy jéggalu bu baax in uridu ilal islaaha mastataxtu wa ma tawfiqi illa billah